ñoo ngi leen di nuyoo fii ci ëtt bu sell ëtt bu màgg ëtt boo xamee ni mi ngi bokk ci ëtt Cheikhul Xadimi al maqarul asna tur wu am solo woo xamee ni eh, jar na dëkk fi ndax tur wi jóge ci kilifa gu màgg Cheikh Salihu Mbakke ñëw ci Cheikh Abdoul Ahad jaar eh, ci sëriñ Hamzatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke di jàmbaar joo xamee ni sëñ bi rek ko ñor ay yëngatoom ak dalam lépp man la ma ci xam mooy sëriñ bi barki dem ma am taalib bu ma muy wax ak Saalihu Mbakke naan ko ko bokkalul Baye yaa ko gën eh, Baye ndax eh, sa waajur fu muy yëngutoore mbaa ñu dégg kàddoom rek ci Cheikhul Khadim moo tax waaye mu feggam ak rakkam léppam sëriñ euh, Sidi Ahmed Mbakke euh, moom Cheikh Abdoul Khadir Mbakke xayartu kenn ku nekk xam moom it xam-xamam yéeneem pëstéefam taxawaayam itam ci yoon wi ñuy euh, di yëkkati kàddu ci seen diggal ñoom ñi ñi nga xamee ni ñoom ñoo jiite daaira wala jamaaya wala association bi nga xamee ni moo tudd xuddaamul xaddiim xuddaamul xaddiim nag ci lii lañ koy séentoo mooy liggéeyal cheikhul xaddiim waaye boo ne cheikhul xaddiim euh, tey nag dañoo laal jëwriñam ja ki nga xamee ni mooy ki gën a màgg lépp gën a màgg ñëpp di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sëriñub cheikhul xaddiim euh, sëriñub cheikhul xaddiim bi nga xamee ni ci la doon wax naan wasiilati wa matlabi wa munyati daani wa jannati wa junnati wa buxyati sayidina muhammadin afdali man mada wa man yaati wa man fida zaman kooku eh, la cheikhul xadim waxoon ne ko juttu lahu lyawma bi ruuxi walbadan wa walidi wa walidaya fi l alam kooku moom la waxoon daa ne xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xululi ramsi kooku ku màgg kooku yi ku tedd kooku nga xamee ni lépp lu jag tey mooma tey bundee dund nii mooma ay noon yoo xamee ni xamuñu dara di dox ak seeni bakkan ak seeni caaxaan daal di dal ci ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku nag eh, bun dalee ci moom daayira bii dana jóg di xuddaamul xadiim waaye dana ko jóg ànd koog bépp kuréel boo xamee ni mu ngi mel ni moom di dox li muy dox ci biir Touba waaye ci biir Sénégal ak ci biir adduna bépp nga xamee ni ñoo ñu défendre l'islam moo leen ñor euh, ba tax na ñoo ngi woote di yëgle itam ñëpp ne lii kat ñu def am njaaxum la lii ñuy def lu rëy la loo xamee ni ñëpp ci war a jóg ñëpp a àndandoo bokk ndey bokk baay xeexal lislaam xeexal rasulullahi ndax kooku kat teraanga ji ñu am mooma ndax laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula ci teraanga ji nga xamee ni sun borom defal nañu ko ñun ñi nga xamee ni ñooy njabootuk lislaam ci bi yàlla yónnee ki gën ci mbindeef yëpp muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal ñuy wax daane laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula mu yenent boo xamee ni euh, dañoo ëmbal yërmande waaye itam sun borom digal nañu kooku mooy ki nga xamee ni képp ku ko waggar te fonk ko gëm ko topp ko euh, say mbir yépp dana jage ci moom jëm ci man kon nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñoo ko bokk mboolem jullit yëpp ba tax na fépp foo xamee ni ab jullit ma nga fa moo xamee ni fii ci biir Touba ak ci biir réew mi ak ci bitim réew ñépp dañoo war a àndandoo nekk benn loxo boole seen doole lépp fas yéenee taxawal yonent bi sallallahu alayhi wa bañ cee am benn complex benn ragal wala dara ñu royee ko ci suñ jàmbaar ja Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ca nam ko waxe ci maana man de su ma ragalee dama xamul man maay kan ndax sama woy jur dañ ko fexee la fexeel ba mënuñu dara ci moom ci laa soog a gane àdduna kon nag man su ma dee ab ragal mbaam ma hésité ci lenn kon man xamatoo man Abdoul Ahad may kan fay itam ñun murit yëpp ci lañ dugg sëriñ tubaa dañ ko fexeel fexeel ba mënuñu dara ci moom daal di dellusiwaat soog a jébbalu nekk taalibe sëñ Bamba mu nangul sunu taalibe te kooku nag kim teg ci kanamam mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gën a uh, foor ci moom kon nag képp koo xamee ni ab murit la képp koo xamee ni ab jurit la lii war na koo naqarlu taxaw lii nga xamee ni noon bu mag boo bii nekk jiite France ñu naan ko Macron xaw ma wayam kuroon wayam kurullahu waa attana boppam sax incha allah lii muy fexe du dem comme que ñoom ñoo mën a daje ñoom ñi xam ay noon lañ julit yi nañu dajaloo nekk benn te bay seen naayif gi nekke nooy bopp ba ñu dugg seen biir di leen jaxase ñoom ñëpp dañoo war a nekk benn ndax yàlla jàngal nañu ko waatasimu bi hablillahi jamia wala tafarraqu kon ñun ñëpp benn lañ war a doon lépp ñoo ko bokk diine ji lépp lu ñuy xeex lépp luy lislaam euh, ñoo ko moom kon dañoo war a ànd nekk benn taxaw bu baax a baax lii nag képp koo xam ab judit la képp koo xamee ni day woote ne rasulullahi mooy sab sëriñ ba bëgg nga ko ci lenn sa alal sa bakkan sa dara waru koo fekkee jóg nag fas ne taxaw défendre lépp ba tax na ñoo ngi woo mboolem association yi moo xam fii ci biir dëkk bi lee di Touba wala biti dëkk bi di Sénégal ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi ak mboolem kuy julit ni ko mbooleem réew yi yëpp naqarloo fii la gën a jaadoo fii ci kër Cheikhul Khadim moom mooy xaddiimul Moustapha xaddiimul Moustapha nag kenn dong laa gis mu tuddu ko mbaa gën siiw muy Serigne Touba mii kon nag lépp lu ñu wax ca sangam boobee ñun war nañoo jaay suñ lépp suñ dara waru ko fekkee jóg nag fas yéenee saafara loolu comme nag euh, ci jëf lañ ko war a saafara mbaa ci wax mbaa ci yéene benn bu nekk danañ cee def suñ kemt lay kattan lii nga xamee ne nag moom la saali Saliou wax ci niñ mën a xeexe lépp loo xamee ni farance manga ca di ab produit am mbaa lu mën a doon comme ni ko nit ñuy defee loolu fii la war a njëkk ñu taxaw ca kon nag lii mooy déclaration bi nga xamee ni moom la xuddaamul xaddiim bi nga xam ne liggéeyal cheikhul xaddiim liggéeyal rasulullah ak lislaam moo ko tax a jóg lii la jógoon doon ko annoncé di naqar lu baax a baax ndax lépp lu dal ci yonente bi ñun waruñu ci xaar kenn te ñëpp lañu ci séentu loolu moo tax ñu woote woon daan ni war nañoo def benn annonce benn déclaration boo xamee ni nag day jëm ci ko koo xamee ni ŋàññi na surtout Macron mi nga xamee ni jóg na caricature rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu sang te ñoom bu ñu bëggoon jàmm man mënoon nañoo jël seen maam mbaa ñu jël seen bàyyi caricature ko ah benn problème du ci am waaye sangub jàmbur kilifag jàmbur sëriñub jàmbur nga jël di ko ak melokaan wu bon boo xamee ni ah eh, eh, jéggi na dayoo kooku nag foofu la tooñ mën a nekk te ah, tooñ moom ku ko def fa faw suñ borom dana la fayul moom waaw kon nag kàddu yaa ngi noonu lépp lu ci jub loolu lañ bëggoon a wax lu ci dëng nag ñu xam ne nii ci matadi doomu aadama la di jégalu ñëpp di sant ñëpp di wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني